dañu doon ay ndaw am benn label boo xam ne mu ngi tudd Maxi VIP production di yëngu ci événementiel ñu xam ne fin d'année bii nga xam ne tey moom la ñu dëgmal muy année 2023 yàlla dimbali ñu ci ñu mën lu ñu mënutoon ci 2022 ak année yi nga xam ne moom moo moo ko jiitu moo tax ñu def ñaari conseil de la jeunesse concert de la jeunesse bi si njëkk mooy Vigie ñu koy def le 30 décembre incha allah ci esplanade Cœur de Ville bu Kaolack di ci rendre hommage di ci sargal Pape Demba Bitèye directeur général de la Sénélec parce que suñu nit la suñu xarit la di def ay performance ci jeunesse bi di def ay performance ci culture bi di def social mom motax ñu rendre ko ci hommage muy Vigie le 31 décembre inshallah ñu indi ngaka Blindé ngaka Blindé nak suñ ko indé mu don fin d'année bis bi mujj ci at mi ñu am ci suñu partenaire bo xamné ne suñuy partenaire bi ci ñëk moy mak entreprise gay euh di def céréales di nga di def li nga xamné tay euh mom lañuy soxla ci Kaolack lu jëm ci li ñuy bayee ci Saalum muy dugub cere ceebu mboq ak lu bare li nga xam ne tey moom la moom la nit di yëngatu di ko soxla ci ci biir këram euh, mu ngi nekk Bongré fii mun a Gueye jiite ko ñu gën koo xam ci ndey tuuti mu nekk nit koo xam ne franchement bu liy amee tey dañ ko koy salte ndax bu lëkk lekkee alam na ko gërëmee cooy lii ñuy def tey dëgg la départ nañ suñ borom dimbali nu ñu am taxawaay bu nu am mais bu ñu demee tey ba mën a am yenn yenn yenn yenn ndimbal yi ci Maimouna Gueye la jaar muy ndey tuuti C'est moo tax mag ñun li nga partenaire officiel boisson réel mix. am fi parce que tëgg ñaari programme yi tegaloo gisuma fi promoteur bu mu wala wax ma kam na ko donc le 30 le 31 donc je pense que ñun sommes koy fi donc labelu production label boo xam ni wax Touba lay meng dañuy dox ci mi ngi donc di ñaan yalla jour ba mu dugg si bisimilah rahmaani rahim di gis alhamdulilah rabbil alamin di remercier aussi wa Real Mix sincèrement parlé parce que Ndeye Tuuti wax na ko léegi xëy na track pour mën exprimer wu mais jambar la jambar la parce que jigen gu mën góor la man tay la ko do gis mais je sens que kat la donc buñ collaborer ñun ak yéen dañuy gëna sawar man Touba damay gis après nako ko léegi nañ ci gëna sawar gëna a di wax ni ñun Maxi VA production jox nañ leen 100 pour suñu partenariat jox leen confiance di ñaan yàlla lépp lu ngeen bëgg si Maxi VA production yàlla defal leen ko aussi boss bi tamit mu sut seen njort. réel mix bi dañu nekk dañu bëgg mu gën a tas si dëkk bi parce que nit yi comme dañu koy laaj tout le temps tout le temps moom mu am yéeneem bu rafet parce que au début affaire sponsor lañ doon def mais dañu dem ba ci biir ñu collaborer je m'explique mooy comme mu ne ma moom dafa bëgg Real Mix bi tas ci dëkk bi yëpp nañu def benn euh, Real Mix bi ku jënd euh, ticket bu 3000 da nga ben benn Real Mix amna ticket aussi euh, yoy prévente la amna tamit jour J 5000 francs la ku ko jënd itam di nga am ben bon amna aussi 10 000 VIP point de vente après nañ ko wax mais pour l'instant dañuy joxe ñaari numéro yi nga xamantene ñi ñiy jaay prévente yi bi 566 la 77 566 25 59 benen bi 78 la 0 62 62. donc mais li tax ma gëna nak nag sawar ci yëf yi nit dafa am coloré parce que boy and ak nit mu jiital kóllëreem bu leneen nañu and ligay dang ci ciy te coloré moy bité monsieur bité et que muy sama frère da ma xamné monsieur bité ba taxaw lu bari. ci monsieur bité parce que dafa am taxaway bu am solo bu mu def parce que dañu wax ak mom mu né li tax concert bi ma dougal ci sama loxo jeunesse bi moo et que parce que dañu xam ne fan yi jeunes yi dañu jël seen xel yëpp def ni amul ci dëkk bi donc mu ak di dem ci gaal donc mu ne dafa focaliser wu jeunesse bi donc nous mu ne fin d'année bi nañu def nañu ko wax lan la Nous bëgg dafa bëgg indi parce que dañu d'accord après mu oowaat ko ne ko le 31 lan Touba ne ko pour l' kaw Kaolack amul dara mu ne nañu defaat Ngaaka Blindé parce que Ngaaka aussi nit yi dañu ko bëgg mhm. donc euh, monsieur bi tey dañu koy remercier bu baax ak madam bi tey voilà loolu moom laa bëggoon euh, leeral tuuti